jërë ngeen jëf ami internet Dakar live dal leen jàmm seen toppukaa toppukaay càmbar ko rek indi ko ci penc mi su ko defee kenn ku nekk mën see jëlee jàngat wax position ak cas bu ñu topp nag mooy Miss Sénégal waaye nag Miss Sénégal atum 2020 la ñuy waxtaanee muy Ndeye Fatim Dione dëkk foofee ci diwaanu Fatick dëkk ci dëkk bu ñaan Sokone coow li nag bëri na boobu ba néegi ni mun nañ ne atum 2020 ba 2021 bi nga gisee ne ndak Missu Ndakaaru Ndiaye gagné na li nga xam ne mooy Miss 2021 ba tey coow li jeexul ndax Ndeye Fatim moomee ginnaaw ba mu gañee Miss 2020 boobu ba léegi ni amu ci benn bànneex naqar la ci am waaye tur képp la ci am du samay wax waxu Ndeye faatim la ndax taxawoon na fu nekk di laaj alalam bi nga xam ne moo ko moom ne comité d'organisation bi dañ ko ko jox li nga xam ne moom lañ ko diggoon waanaam ndaamar geeg tukki geek ak bourse d'études yi ñu waxoon nañ ko koy jox ñoom seen Ndeye Fatim ne gisu ci dara ca walla ba Ndeye gisoon nga ne am nañu jotoon génn post ci Facebook ñi nga xam ne ñoo faree ca dëkk ndey faatim boobu noonu ah, di xam na rek ne Ndeye Fatim liñ ko dig joxuñ ko ci dara te Ndeye Fatim dafa feebar waaye lu olof naan tontakat borom tontu baa dàqale ki koy tontal daa mel ni nag yaay Ndeye Fatim génn na wax yenn si suñuy ay plateforme naataango lu ci mel ni Seneweb lu ci mel ni Dakar Buzz ndax soxna ndey Mati di yaay ci ndey faatim gën na ñëwaat ci li nga xam ne bi ginnaaw bi ndey Fatim bi duggee ci li nga xam ne mooy mbiru miss yooyu nee na nag famille bi kenn d'accord ci woon man yaayam maa ci jël samay responsabilité nekkat comme que daf ko bëgg te passion la nañ ko jàppale waaye bàyyam mosusoon a ànd ay mbokkam mosuñ ci woon a ànd mu ciy dem di ci dem ba yàlla def mu qualifié ñëw Dakar làbbali moromu miisam yi fi nekkoon ca wàlla ba nag yaayam nee na jot naa dégg lu nekk ginnaaw bi doom gañee ay sénégalais di ko sobabte di wax lu nekk di ko teg ci kaw dram bi waaye di sabati ki nga xam ne mooy Ndeye Fatim waaye nag fii mooy Sénégal naan miss bi daa ñaaw ak patati patata waaye yaay ji sa wàllaa ba li mu gën a xamle mooy biñ ginnaaw ba ñuy gañee li nga xam ne moo nekk final boobu noonu ca kaw seen ba li nga xam ne moom lañ fa jotoon a jox depuis boobu lañ gëj a gis lu mel ni xaalis wala lu mel ni bagage man mii di yaayam ba muy ñibbi ñeenti junne CFA lañ jël teg ko sama loxo dama paas si boobu ba léegi nag ñuy dem di dikk di dem di ñëw may déglu comité d'organisation bi lu ci mel ni Amina bi nga xam ne moom laa doon gën a dégg ndax moom moo nekk ca njomportal ba jiite mbir mi waaye boobu ne bi néega ni furas dal di xëddeen ndax yaay faatiment mu ngi xam ne rek ne dem nañ ba ci biir sax ne jot nañ fi woo faatiment mu dem ndakaaru wuy jiwaat li nga xam ne moo nekk ay ñi ko jiite ci li nga xam ne mooy Miss Sénégal bi di comité d'organisation bi waaye jëlewu fa dara jaabante na Sokone dakaar ba ci biir sax demoon nañ di ko jot invité ci benn plateau tele pour mu dem ñu ne ko kat yaay sa doom ji dañ ko soxla na ñëw yaay ji tegal leen alxatir ne sama doom du dugg ci yéegal ma wàcc wala puusal ma toog parce que dañ ko fay bëggoon a agressé si gaaru Kaolack boobu noonu gars na ko amul benn problème dinañ la utal oto wax ñu oto bi ñaata ñaata la yaa ji ne leen fukk junne li nga xam ne mooy comité d'organisation bi na ko ñun dinañ la envoyé juróom benn su ñëwee ñu mottali yaa ji dem laaj borom oto bi borom oto bi bañ lànk ba tëdd ci naaj bi yaa ji ne man dinaa dem sama école lijjanti ko nee na laataa muy dem di ko lijjanti si suba si ñu woo ko ko garaawul benn émission képp la bu ñuy def rek léegi après ñun dinañ ko lijjanti nee na moom toog na seetaan émission waaye déggul benn yoon ñu tudd tudd ki nga xam ne mooy Ndeye faatim John donte Pape fay mu ngi woon ci ruq ba di neexal wala di def loo xam ne day rafetal waaye ki nga xam ne mooy Amina dafa jël ki nga xam ne mooy Ndeye faatim tege ko boor mel ni ku jël sa jën seppi ko ci ceeb bi sànni ko fa la jox ko muus bi ba tax na yaay ji nag rafetewul loolu loolu benn yoon waaye yaay ji nag lu ko si gën a métti mooy mii su ndey Fatim bii daf ko gën a indil problème maanaam moom daa feebaroon feebar bi gën ko yokku moom ma di yaayam ba pare neen lu ko ci gën a méttiwaat mooy yaayam mooy wax ba tey ndey Fatim ñëw na fii Ndakaaru ñu ko doon yóbbu ci otel xëy benn bés di ko yóbbu ci kër nee na nag loolu moom xamul lu ko waral waaye ca wàllaa wa Ndeye faatim jot na fee feebar feebar yu métti ñi nga xam ne ñoo comité d'organisation bi ñu seetaan ko lijjantiwuñ ko benn yoon feebar na fi li nga xam ne mooy feebar hôpital waaye tamit feebar dem ci maam mëni ndax képp xam nañ ne Miss boo ko doonee ah, te amoo cumbukaay bu yeboo say mbokk tàllal seen loxo ndax fii mooy Sénégal waaye yaa ji nee na am na nag kenn koo xam ne bokkoon na ci commité d'organisation bi da def liggéey bu am solo ndax nag biñ ko dàqee école jotoon na génne ab koppar bu toll ci soixante mille francs CFA jox ko pour mu dem continuer li nga xam ne mooy jàngam waaye après mbir mi dafa tege tembe ndax man yaayam am woon xaalis dama feebar fii laa bëgg a tukki sax bëgg ànd ak moom laaj leen passeport Ndeye Fatim waaye ñoom dañoo tëdd ndaare ci naaj bi ne duñ ma ko jox lépp rek pour yàqal Fatim ndax Fatim dem na ba ci biir dootoon wax ak téléphone ki nga xam ne mooy Amina mbir mi nag jaaxaloon ma ma laaj Amina Amina daal lu ma xamal mooy ne ma Ndeye Fatim xale buy réew la yaruñ ko man mii di yaayam nag man gisuma loolu ci ndey Fatim peut-être moom loolu la gis te ku xam Ndeye Fatim xam ko ci yar ku weddi na laaj samay dëkkandoo yaay Ndeye Fatim loolu la wax ci li nga xam ne def na ko ci sortem bi nee na nag lu ko ci gën a métti moo ke ne kat dafa wanu lor ci li nga xam ne moom la neew noon muy Miss boobu noonu Miss atum 2020 bi mu nekkee Ndakaaru moom moomee Ndeye faatim gars yi dañ ko dóor bal bi te xamul fan lañ ko dóoree bal bi maanaam dañ ko dóor bal bi tuy ngeen baal ma ci terme bi Ndeye Fatim yaayam nee na ci li mu waxee dañoo sàkk doomam ëmbal ko mu metti ko lool yaa ji dem na bay jooy te sax yaa ji ba ngi xamal ca wallaaj mooy ñi nga xam ne ñoo yore comité d'organisation bi dañ doon teg ay conditions ci kaw Ndeye Fatim Ndeye Fatim nag loolu la bañ ba tax na lépp lu soxla woon jotu ko si ñooñu ba tax sax nee na am na ñoo xam ne dem nañ ba koy wax ñu bokk ci comité bi ne ko lépp lu la anim Amina digal da ko war a def soo ko deful nag loolu day indi problème suñu xel bu gàtt comme si yaa ji wax xale bi dañ ko bëggoon a jaay teg ko ci marché table yaay ngoone bi def ko benn jaxatu wala benn carotte ku jóg ñëw laajte ñaata lay jar mu nekk nag mbirum cagatu nañ ngeen baal ma foofu lay maire bi bëgg a waxee waaye meer bi li ko si gën a métti mooy doomam ñëw na ndakaaru biir xamul ku ko ëmbal ñu sàkk ko comme ni yaayam waxee te nee na doomam dafa nekkoon ci projet mariage ndax demoon na ba bëgg a bàyyi yëpp sëy ak ki nga xam ne mooy xale bu góor boobu noonu ki bëgganteel waaye nee na mbir mi moom mu ko jotee ci nopp benn xaritam waaye ca wàllaa ba tamit ñu yóbbu xale bi hôpital mu jàppoon ne xale bi dafa am feebar waa maanaam wàllum fibrome ba ñu demee ba ci biir xam ne fibrome bi du kese doonul fibrome kese kese kese waaye biir ba daa am ab nenn tuuti ba ca nekk ndey faatim am doom ëmb comme ni ñu leen ko waxee yaa ji nag jaaxle rongoñ ju tuuru ndax yaay dafa sori ci doom yaay ji am mbetteel waaye am gàcce tamit gis ngeen li mu wax am lu ko métti lool ci doomam te kenn teg ko nee na comité d'organisation bi rawatina Amina nee na parce que Amina lépp li nga xam ne def na ko wala wax na ko jotu si def lenn France daal di xëdem ba pare daf leen saboté sànni leen ay xeer lu ci am ba am mooy ne jàppale ne Miss 2020 sa misam boobu noonu ab ëmb la ci jëlee xamuñ nag kan moo wax dëgg ak ku waxul dëgg ci ñaari yëpp waaye lool te nag nee na du leen ko baal benn yoon te nee na nag alalu àdduna moom soxlawu ko waaye nag dafa bugg rek lépp ñu teg ko ci lu leer ndax àdduna amul solo waaye jàppale na daal Ndeye Fatou moom ci miisam 2020 boobu noonu moom doom la ci jëlee senegal nag mi ngi noonu euh, beneen wax ji tamit mooy position wu Amina moom itamit indi na li nga xam ne moom la mbir mi demee ñu déglu version Amina nu demee Amina daf ne miis yi kat nii lay tëddee dañuy def li nga xam ne mooy sous forme de contrat bu la doyee ñu la siñel mosul am fu ñu bindee ci contrat bi na ko yow kat Ndeye Fatim da ngay am oto te li muy wax naan Matar Ba demoon nañ seeti ko waaw loolu am na te gis nañ ne yaayam expliqué na ko Matar Ba un million franc CFA la ñu may maanaam benn million si suñu koppar la ñu may ñu jël ko mun nañu def leen ko ci comité d'organisation bi ngeen xool ñu ngeen organiser pour que mbir bi gën a yemb Amina Thiaw wàllaa leen. Ndeye Fatim mii nga xam ne moo dëkk Sokone dem na ci Abdou Latif Coulibaly dem ci ay kilifa Sokone ba njox xaalis parce que loolu miis la war na ko def dem na defi ko léegi lan mooy problème bi ca wàllaa ba nag Amina di xam na rek ne ñëpp gisoon nañ Covid beeg yooyu ñoom seen comme ni ko yaayam ji waxee ne ko Amina loolu ko tontoon waaye li ci gën a yéem mooy Amina bañ ko laajee na ko Ndeye Fatim kat dañ ne si yéen lañ ko biiralee maanaam sàkku ko. ca hôtel ba mu nekkoon xawma ca kër ga mu nekkoon Amina ne kuñ biiral yow la neex kuñ viyeel yow la neex ci suuf nag ñu ngi dégg Pape Faye mu naan lu tax demul porte ji plainte en tout cas mbir mi lëndëm na ci bëtu sénégalais yi lëndëm na ci man mii di topp kaa bi sax fu mu nii waaye lu ci am ba am jàpp leen ne Miss Sénégal 2020 coow la jeexagul ba tey muy ndey Fatim jon feebar bàyyi tamit jóge ci ëmb te xamuñ kan moo ko ëmbal te mu ngi ëmbee fii ci ndakaaru comme nu ko yaayam waxee biñ ko fi woole woon xamuñ ne dañ ko sàkk wala sàkkuñ ko li am ba am moo ne diggante Ndeye Fatim jonn ak diggante comité d'organisation bi ñoom ñaar ñooñu ñu ngay ping pong ndax yaayam demul dikkul te yaay ji am na lu ko métti te ñëpp xam nañ yaay dafa sori ci doom comme nag wax sa xalaat la te topp ska la man leen rek laa ci def ab jàngat bu ndaw mooy jotaat nañu xoolaat toogaay bi jot na ñu xoolaat aussi tamit ni ñuy sélectionné li nga xam ne mooy Miss Sénégal comme ni ñu koy defee waaye tamit ñu waxtaan suñu biir parce que am na yoo xam ne amul benn njëriñ ndax gis nañ sax Amina moom dem na bay xam ne ne li li bokk li tax mayuñu sax boursu ki nga xam ne mooy Ndeye Fatim moo ko ne moyen bi mu am baaxul maanaam dafa redouble en plus amutoon bac te moyenne bi dafa catastrophoon trop trop trop du samay wax waxu Amina la te Amina nee na période boobu noonu mënuñu woon am boursu ndax Job Isaac moo ñu ko doon may demoon nañ sax bañ ñaan comme ay bourse pour ñu may ñu waaye ba ñu xoolee ay moyenu ki nga xam ne mooy Ndeye Fatim looloo taxaat ñu dellu ginnaaw waaye lu ci am ba am mooy Miss Sénégal tamit jot na ñu xoolaat ko fii Sénégal bu dee boo nekkee Miss force da nga am condition yoo xam ne dañ la koy tegal su ko defee ñu teg la ci marche yaa ngoone bi ñu xam bu dee Miss Sénégal dañ ko def ab foo kepp pour jaay beauté Sénégal ci àdduna wërngal këpp ñu xam ndax nag ay xale yu ndaw rekk ci bokk te bëri na détail lool te lii nag bu continuer amaan na mun na yàq xale yi bu dee am na comme ni ko yaay ji waxee bu dee loolu moo am ca wàllaa ba tamit ñuy organiser nañu xam ne nit dafa am bëgg-bëgg ñëw pour bokk nañ fexe lépp li nga xam ne wax nañ ko ak moom ñu jëm ko def waaye lépp tamit ñu def ko ci fair play def ko ci yar ak teggin eh, lu ñuy ñaan nag mooy Amina jéemala woon Ndeye Fatim Dione ngeen toog waxtaan sa doom la sa rakk la yaay ji ñëw ngeen waxtaan ngeen xam fu dëgg bi féete su ko defee li ngeen ko mën a dimbalee mu continuer jàngam mu continuer ko mbokk yi seen toppukaa la woon toppukaay càmbar ko fii ci Dakar Live TV mbir maa ngi noonu kaawu Ndeye Fatim Dione la woon Miss Sénégal 2020 gis ngeen ne yaayam def na sorti jooy na jooy métti ndax yaay dafa sori ci doom ami Amina tamit génn na tontu leen mbir maa ngi noonu lu ci rafet jàppale ne suñu borom la lu ci ñaaw jàpp leen ne ci man mi doyul mii la ab ndaw kaj pla ndax nit day juum cër ngeen jëf